بالله بسم الله إن ولي الله والصلاة والسلام على أسف المرسلين من النبي بعد ربي يسر لي صدري ويسر لي أمري واحلul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ma baax mbokk yi nga xamante ne yéeg ñuy bàyyi xel ci télé bu mag bi ci Touba TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax jiite ci nuyoo beeg ziar bi saahibul fadila Cheikh Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Mamadou Bassir di ko ñaanal suñu borom wéral ko yàggal ko kàttanal ko te mënal ko bali mun naa ci tere maam bu tedd bi suñ borom may ko mën a yéggale ko ci loolu lañ koy ñaanalee xalifa général de Baye Fall ak kullu ki wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah di ko ñaanal suñ buntu ci kër Cheikh Ibra Serigne da Fall mu Serigne Bassirou Fall alquran di ko ñaanal xaritam ba soppeem ba dongam ba te mooy Cheikh Saliou Lo Cheikh ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax ni ñu ko baaxoo defee ci suba ba léegi ànd ko ak yéen ànd ko personnel yu Touba TV bi yépp ngir lan bisu tey bu sell bu tedd bi dañu naan ko bisu poroxaan ni ki noonu nee naa la suñu ay correspondant ña nga foofee ca poroxaan di leen jox lépp loo xamante ne ruus na fa waaye ñun ñi nga xamante ne ñoo leen nekkal fii ñu ngi toog ci plateau yi depuis ca suba ba léegi di leen jox ak di waxtaan ak yéen li nga xamante ne nii moo di programme poroxaan tey nag nee naa la du ci wet benn yoon maa ngi ci ànd ak soxna Ndeye Fatou Mbeng moom Serigne Fallou moom mi nga xamante ne nee naa la ci kër gii la nekk journaliste la fi euh, animatrice la fi maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax waaye laata may dugg ak moom ci waxtaan bi nga xam ne moo waral tey suñ jotaay bi dama koy bàyyi mu nuyoo daal di ziar su noppee dinañ dugg ci li waral coow li te mooy poroxaan waaye tamit dinañ am soxna su mag soxna su tedd soxna su sell soxna soo xam ne ab liggéeyam yaatu na lool soxna soo xam ne kenn du tudd poroxaan te tuddoo ko te mooy soxna Aïda Ndiaye Badaloo laata loolu dañuy bàyyi soxna ndey Fatou mu nuyoo saafonte ñu waxtaan ak moom seq ak moom ay laaj ak i tontu ginnaaw loolu ñu doog a ñëw ci soxna su màgg sos waxtaane ko salaamaaleykum wa rahmatullah aousubillah min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uxdatan min lisaani yafqahu xawli barke borom Touba dooley maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine barkeb Cheikh Mdou Fadal mi ñu gëm te doyloo ko yéen ñiy topp seen télévision Touba TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ko tàmbale ci kilifa yi ci ki ci gën a kawe ba ki ci gën a suuf ku lim da ngay di leen nuyu di leen ziyaar ñi nga xam ne ñoo ŋànk programme bi itam ba amal jataay bu mel ni ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar soxna su maa ngi lay nuyu di la ziyaar bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di euh, dalal rek ñi nga xam ne nag ñoo ngi janoog seen télévision Touba TV euh, di ñi di leen dalal bu baax a baax ñi nga xam ne ña nga poroxaan ak ñi nga xam ne ñoo ngi fii di leen dokkeel ci bés bu tedd bu màgg bi euh, di delluwaat rek di la jox kàddu gi mhm. ba ñu yegg ci tontu ak laaj yi jaajëfal nañ la bu baax a baax mu ngi noonu nee naa la mbokk yi ci àdduna bi yépp ñu ngi ñuy bàyyi xel diwaanu Ndakaaru ak li ko wër waa Touba Mbàkke ak li ko wër ñoom ñépp ñu ñuy bàyyi xel depuis ci suba ba léegi bépp programme diine boo xamante ne ña nga ca rek waa Touba bi am na ci taxawaay bu rafet mm-hmm. waaye laataa ñuy dugg ci laaj yeeg tontu yi dañuy bàyyi waa Rési ñu dugal benn élément ñu dem dikkaat incha allah. ba samay relève màgg ñëw. maa ngi ñaanal ñëpp di gërëm yëpp yéen sama laa classe yi maam jaare yi nee naa leen ñaanal leen ma ma am. la fi soxna sa Waalo amoon cent trente neuf ans après xay na bu ngeen ko tiinoo mu bu ñaama te bu ma tële nag man maa ngi soixante dix ans yi sax manqué na un an et quelque xam nga kon juddooguma na ngeen ñaan bu baax bëgg naa la ma san Moustapha Bassirou sa doon ci yéen lépp ma dem ci ba jeex ba samay relève màgg ñëw mi ngi noonu macha allah am na solo élément bu am solo boobu te daw yaram suñu ko gisee bu ne rek suñu xel day dem ci moom bu baax a baax nekkoon jàmbaari soxna jaara nekkoon jàmbaari fàkk tëdd nekkoon koo xamante ne am na taxawaay bu rafet ci lislaam am taxawaay bu rafet ci soxna jaara ak poroxaan sëñ Moustapha Basiiru la ko dénkoon mu taxawoon ca taxawaay bu rafet ci soxna jaara yi ca poroxaan ca waañ ba waaye nag euh, soxna Ndeye Fatou mhm. ku ne soxna ay Ndiaye Badalo ne soxna ndey Ndeye Fatou Mbengue yéen ñaar ngeen taxoo woon lool te nee naa la loo xam-xam ma sàmba ma sàmba gën laa xam boppam ñu bëggoon a xam ci tënk bu gàtt kan mooy soxna Aïda Ndiaye Bada Lo ah, jërëjëf soxna Astou xam naa tey moom laal nga sama sama sama siddit mhm. euh, soxna si nga xam ne moom la ñuy waxtaane tey muy soxna Aïda Ndiaye Bada mhm. ah mën naa sedd ci moom alxuraan dafa wax wama shahid naa ilaa bila alif naa mhm. ba nga xam ni am na lu bari loo xam ne ànd nañ ko mhm. dund ko waaye lépp génnul sëriñ bi ci sëñ bi la tàmbale ci la yem mhm. ndax moom laata muy fees ci liggéeyu sëñ Touba bi mhm. dafa nekkoon femme d'affaires di liggéey te ku nekk gis na sunu boroom li mu wax ci liggéey waaw di liggéey di daan dooleem am ñaqam am alalam yéene ko nag Cheikhul Khadim ak waa Karim rawatina nag mu féetewoo yàlla dimbali ko mu féetewoo ak soxna jaara mhm. ba ñuy xamante yàgg na lool yàgg na lool mhm. ndax ci waar wi lañ ko fekk ñu nekk mu nekk sunu mag ñu nekk xale xamante moom booba sax liggéey bi dooragul ndax mu ngi ci woon waaye sas wi ñëwagul woon mhm. waaye liñ naan rek balaa nga naan naam nekk fa waaw xëy na pas-pas ba mu amoon ak taxawaay bi mu am moo dem tey ba sas yi ñëw ba fii mu toll nii ba tey ba nga xam ne ku ko tudd rek sa xel dem ci poroxaan ñu ànd ko nag mhm. mu def ma rakkam def ma doomam man it ma def ko sama yaay cof yàlla mu mu am am lu bëri loo xam ne daf ko daf ko def ci man mhm. di ko ànd ak man mhm. fanaan nañu yendu nañu ànd nañu fu ne lu bari na jaar mu doon koo xam ne nag cofeelam ni ak fonk gi ak pas-pas bi mu am ci soxna jaara gisaguma ba fii ma toll di ko wax mhm. gisaguma ko ku ni mel mhm. ndax moom àddunaam yëpp soxna jaar rek la ko la ko dëg ma loon mhm. moom la ko bëggoon di jox lu muy lijjanti soxna jaara lu mu bëgg soxna jaara lu muy laaj soxna jaara euh, hmm. naka la def ba fës ci liggéeyu soxna si waaw ndax xam nga bi mu taam li ma lay wax nela ci yoon wi la juddu màgg ci di ci dund waaye liñ naan toujours balaa nga naan naam ne ci il faut nga def dara. Mhm. pour mën a am dara wala nit ñi xam la ci. Mhm. waaw mu fes nag ci liggéeyu sañ tubaab bi. Mhm. ba pare wëlbatiku nag féetale ko nag moom ni soxna jaara ba tax na ci loolu ci la dem ba sëñ Moustapha Bassirou. ràññee ko ci. tuddee ñu Baay Faalu maam jaara yi. mu ànd ceeg mel ni man. mel ni mm-hmm. ñoom maire Soda Sarr ñooñu nga xamne ne ji ak ñom mère Ndey Baw ñep tay ña nga poroxaan mm-hmm. ci kër gog nga xamne fa la bay ñu di magal beli mm-hmm. ba Nyonek ni ñu nekk ci liggéey bobu bay Fall mam jaaray mu jël nak def ko def ko sacerdoce def ko pas-pas def ko bëgg-bëgg def ko gëm-gëm ba nga xamne ne fu mu mëna femme d'affaires la wax la ko da doon dem fu ne su dé Amérique ma ngay laaj lu mu indi poroxan su démé makka ma ngay laaj lu mu indi poroxan su nekkee fii ci réew mi lépp luy àddiya pour ñu jox ko sëñ Moustapha Bassirou jox ko lu jëm ci poroxaan Aïda mi ngi ci di ko mhm. laaj mhm. dama daan ànd ak moom mhm. kilifa yu bari yu ma xam tey muy kilifa ci gouvernement bi muy ay homme d'affaires ay businessman ñoo xam ne fi la ñu nekk di di yor seen teraanga yépp ñu nekk sax nekkuñu sax ay murit mhm. mais Aïda dafa leen daan incité pour ñuy def ci soxna jaara su màggal xasaana euh, teru mhm. day ne day faatu acca takku la xasaay mhm. ku mel ni Farba Senghor ku mel ni Aïda Mbodj ku mel ni Moustapha Tall bi yor ceeb bi amul guddi amul bëccëg daf ma daan yee à n'importe quelle kuñ ci dem sa biiru fekk ñu la fa sa kër la lay fekk bu la fa fekkul day toog xaaral ne nañ ko xaar fii ba mu ñëw mu ne mën a ko joxeel joxeel ci soxna jaara soxna si rek ma ñor. Mhm. ñii ñëpp kilifa yu bari yu fi nekk tey di di di di def euh, di joxe àddiya mhm. moom moo leen incité woon ci liggéey boobu ñu di ci ànd nag di ci ànd ànd bu rafet mhm. ñun ñi nga xam ne ñoom ñun la doon àndal damay bañ a lim ci ci ci ci lu jëm ci liggéeyu euh, poroxaan daaw ci xaar kenn bu màggal xasaana teru danaan bàyyi faale lu ngeen di daanoo balaa ñun ñuy joxe di dajale moom génnee fay na bus yi génnee na xéewal yi génnee na àddiya bi te heure bu ñu janoog sëñ Moustapha Bassirou lu mu lu mu joxe lu ñu joxe da koy xeeb day bàyyi ba ñu joxe ba pare mu duble ko teg ci joxe ko àddiya mu dem nag ci liggéey boobu la dem ba sëñ Moustapha basiir bi mu sosee daara ji mu fekk booba tàmbali naa xam suñuy jataay tàmbali naa xam suñuy activité ci soxna Dia mujj gi ñu koy fekk yi gàmmu Euh, njaareem mhm. mu ne Aïda damaa bëgg yow ak sa mbooloo ngeen di ma fekk euh, njaareem gàmm mhm. ñuy dem di gàmmu ji ci sëñ Moustapha Bassirou di yóbbu suñuy àddiya di mhm. yóbbu suñuy xéewal bi mu wuy jéeb euh, delloo si boroomam yàlla na ko yàlla dolli ay leer ci joxe na ndigal ne buñ bu fi nekkatul dañuy dem ci sëñ Bas Poroxaan looloo waral Baay Faalu Maam Jaara yi di gàmmoo ci Poroxaan ci sëñ Bas Poroxaan xëy na lool ci kanam dinañ ci ñëwaat waaye li tax mu fis ci farlu gi ak pas-pas bi mustaxaar kenn ci joxe àddiya lu ñu joxe it xeeb na ko mhm. maanaam loolu dafa nekkoon dundam mhm. ay da def mariage du mhm. célébrer mariage ak li mariage di sacré du célébrer ngénte njabootam yi ku ci am sa doom wala nga am sa mariage da koy def dans la plus grande simplicité yow booy dem yaay dem defi looy def waaye musta woo kenn ci ngénte musta kenn ci benn woote la amoon wala ñaar muy màggal ak poroxaan ñaar yooyu la amoon mhm. ñu ànd kook sëñ Moustapha Bassirou nag ñu dem ba mu ràññee ko ci gis pas-pas bi gis ni mu ci farloo ba bi mu sosee daara ji mm-hmm. mu dénk ko ko mm-hmm. ba fii ma toog di wax yow ba tey tey tey maa ngi jokkoo ak ñoom njabootam ñoo yor waañ bi ba tey ku mel ni ñoom maam ja mm-hmm. ñoom ñoom ñoom ami njaay kara ñooñu ñoo yor waañ bi ba léegi te euh, dinañ ci dellu waat sowaat mun euh, Muntaxa mi ngi wax ne toujours ne waañ wi tant que njabootu ay danjaay ba duloo delloowuñ ko ko duñ ko mhm. mës a jël. Mhm. te xam nga loolu du nekk. du am waaw mais tamit bëggoon nañu xam lan moo ko xiir ci soxna jaara ba mu dugg ci ci ngaw waaw bëgg-bëgg. Mhm. bëgg ak pas-pas. xam nga am na ñoo xam ne bëgg nañ sëñ Touba. waaye am na ñoo xam dañ ci rawante am na ñoo xam ne ñoo gën a bëgg sëriñ Touba noonu la rek. moom si sëñ Touba la tàmbalee liggéeyal sëñ Touba waaye yàllaa ko xiir. léegi dafa amoon kenn ci njaboot gi kum dëgg ma lool. wala soxna ay moom dafa toog am yëg-yëgu bëgg soxna si waaw yëg-yëgu bëgg mm. soxna si mm-hmm. te ñun ñëpp daf ñu ci doon bëgg soxna pour par force la woon ndeysaan waaw mm-hmm. bëgg soxna mm-hmm. par force la woon man mii bokk naa ci ñoo xam man ak moom lu mat ñett ba ñeenti at yoo xam ne du ñu toog benn weer boo rek chantier bi mi ngi dor ngi door mhm. ci chantier amna mhm. bëss bo xamné xam mhm. ci buntu poroxaan buntu buntu barab bi fi lañu fanan fanaan maa ngi moom ba bërsé set ngi ko naan ay dulu ne yaa ma koy def ngi di xey suba di da xetu ciment bi ak ki ba paré mu amone endurance bo xamné mom mu dama néwon ki du nit amna na lu mu andal parce que amna yo xamné bu ko nit di def té du réfléchir da nga nan ki da ngay dem ba da nga nan sax ki amul retenu amna lu ko dal Mhm. waaw mais bëgg-bëgg moo mel noonu. bëgg-bëgg parce que ku nekk rek gis nga da ngay dof ci li nga bëgg. Mhm. moom dafa dof ci soxna jaara. Mhm. bëgg soxna jaara gëm soxna jaara gëm na ne yàllaa ko bind. gëm na ne ah, sëñ Tuubaa ngi fi. waaye gëm na ne wayjuru sëñ Tuubaa bi moom moom moo ko mën a jox léppam. ban moom ban taxawaay la amoon ci daara ji. waaw taxawaay bi mu amoon ci daara ji mooy ko sëñ bi sosee. bi ko sëñ bi sosee. te ne dafa bëgg soxla na ci. junni maam jaara yàlla na ko yàlla def fi ñu toll ñu ngi ci ay juróomi téeméer ak nangam waaye xëy na fii ak déwén sax junni bi mën naa mat. dina mat mhm. waaw. Mhm. waaye moom bokk na ci ñi indi maam jaara yu baree baree bari ci biir ci biir daara ji. Mhm. ñu ànd ko nag ak moom. moom pas-pas boobu bi nga xamee ne sëñ bi wax na ne ay dakat mun naa mun a ko sas naa la. ci daara ji. new ko ñu lii nga may def lii nga may waaye ba mu ko nee sas naa la rek ci la tàmbali. bàyyiwul bi maam jaare yi tàmbalee bàyyiwul seen col ko mhm. li ñuy sol mhm. ay dëmbuuj mi dem nañu benn bu dul ñaareel daf ko naan sas naa la trois cent mbubb maam jaara ndeysaan dem ci keneen ne ko sas naa la nangami dàllu maam jaara mhm. waaw dem ci ñi ne lañ sas naa la nangami kaala ñun ñoo doon dem di ko ànd ak moom surtout ak moom dem di ko réceptionné man dafa amoon ci man cofeel am ci man loo xam ne Mhm. et c'était vice versa mhm. ndax heure bu mu ma fëggaat même bu ma ko munul damay jóg mhm. léeg-léeg ma ne mun a man day faatu xanaa doo murit murit du feebar murit di sonn murit di kii te noonu la la dundee dem nag ba nga xam ne ñun dañ doon dem ak sunu excès maanaam sunu dool dañoo dem ba yëgatuñu dara boo gisee ñi nga xam ne mooy entourage am dañu am benn particularité ndax yenn saa yi dañu ko daan wax xàmmeewuñu lal ak basan ndax dañ daan def fu ñu dem fu ñu toog fu kii rek bu ñu nee nii rek mu ne wàqi leen tëdd bu ma kenn fontoo ñu daal di kii suuf si maasale daal di tëdd macha allah def nañ ko daaru mi nam mhm. def nañ ko ndax dañ daan def bu ñu màggalee ba la lendemain la ñuy dem yóbbu sunu addiya addiya ci sëñ Moustapha Bassirou waaw foofu bëgg naa ñu ñëw fi ci digganteem ak sëñ Moustapha Bassirou waaw yan relation la amante woon ak sëñ Moustapha Bassirou pas-pasam ak ni mu doon def excès bi mu doon def def ba def lu mu mënul loolu tax na fugg boobu mu amoon tax na ci sëñ bi ràññee ko ba téye ko mhm. jàpp ko mhm. ba tax mu jox ko ay responsabilité ci ba mu sosee daara ji moom la mhm. njëkk xalaat keroog ba mu koy woo di ko teg bi wax mbirum daara ji ñun ñii dafa seet staff bi rek ñu kii quelque yi ñu dem ci otom ñu toog sëñ bi wax ko lu mu bëgg ci daara mun ne ko dinaa ci def ba def ci lu ma ci mënul incha allah te ba tey Mm-hmm. noonu la ci doon doxe mm-hmm. bàyyiwul fóotkat mm-hmm. bàyyiwul ñuy létt bàyyiwul kol bàyyiwul dàll bàyyiwul diw da koy def ci alalu boppam ba pare di ko di ko laaj ma nettali la benn anecdote am na benn benn benn programme bu xew dama xamul ndax màggal la wala daal àddiya la ñu waroon yóbbu doomam jigéen bu nekk Amérique jox ko cinq cent bu woo ba ma ñëw mu ne ma nañ ko ko dama ko koy delloo ma ne ko mooy yéen yow lu la dal cinq cent mille nga ne danga koy de mu ne ma dama koy delloo xam nga lu tax koy delloo mu ne ma mm. ah, mu ne ma li leen yàlla ak yonent beeg sëriñ Touba defal ak soxna jaara mm-hmm. ëpp na lii te ñu ngi koy jox ñu ko yelloo ah. du ma ko laal ñu wax wax wax mu ne du ma ko laal man ne ko léegi loo bëgg mu jox la mu ne ma un million laa bëgg moom kese mu jox ma ñeneen ñu jox ma ku ne un million ma jox soxna jaara ndeysaan foofu nag fa la pas-pas mën a yem loolu nag boo ko dee jëflanteeg nit mhm. ba mu xam ko mhm. ah kooku buy téye yow lay téye looloo taxoon nag déversé ndax lu sëñ Moustapha Moussa laaj Baye Fallou maam jaara yi rek mhm. Aïda matal na ko ba romb ko ndeysaan moo tax nag sëñ bi moom it téye ko téye boo xam ne ah néew ma téyewu ko kenn de waaye téye na ko téye boo xam ne ràññee na ko ndax bu mësaan a ñëw toog da koy ji teeru comme comme kilifa. dañ mhm. ne ko ba ziar bi daf ko doon wax ne bës booy booy xëy si di ziar du recevoir kenn sans que ko ba pare. moom moom naka la daan waajale poroxaan buñ accès ci moment yii. moom poroxaan da koy waaj pendant toute l'année parce que dafa daan am moment yoo xam ne day dem màkk. Mhm. su demee màkk daf fay liggéey waaye day laaj àddiya soxna jaara mhm. su demee Amérique. daf fay liggéey. waaye day laaj addiya soxna jaara mhm. su demee Maroc mhm. daf liggéey ndax yamu daan jaayee ji am euh, jidda euh, Makka Maroc la ko daan commandé ji daf fay liggéey di ko di fa di di di ci laaj addiya soxna jaara mhm. ba à travers le monde Afrique Asie Océanie amul fu jullit nekk jigéen nekk fa te Baye Fallou maam daayira Baye Fallou maam jaara amu fa mhm. bi dafa dañu amoon fédération ba mhm. léegi nii mu ngi dox mhm. fédération Baye Fallou maam jaara yi moom Aïda moo liggéey loolu a travers le monde Afrique Asie Océanie fu nekk rek am na fa représentant maam Dia mii nga xam ne moo nekk tey jii ci daara ji yor waañ wi moom mi ngi nekkoon Espagne mais dafa bàyyi foofu moom it ci Pastefam ñëw nekk fi yor waañ wa Kaolack la dëkk mais bu Poroxaan day bàyyi day jaabante mm-hmm. diggante poroxaan ak dëkkam kaw macha allah macha allah am na solo bu baax a baax soxna Ndeye Fatou Mbengue moom Serigne Fallou dañ koy ñaana bu baax a baax soxna su tedd soosu muy soxna Aida Ndiaye Badaloo mm-hmm. suñ borom yokk ay leeram daan ñuy tas ci barkeem mm-hmm. suñ borom dajale kook soxna jaara ba nga xam ne moom moom moom la doon liggéeyal acca bokk mbokk yi mi ngi noonu kon dañuy ànd ak waa Rési euh, dem xool yi élément daal di dikkaat laataa loolu soxna Ndeye Fatou bëggoon naa nga nga nga nga ñëw ci njaboot gi mu fi bàyyi njaboot gi mu fi bàyyi seen taxawaay ndax nag ku amoon waajur wu mel ni soxna ay Aïda Ndiaye Badalo taxawaay bi mu am liggéey bi mu am sas wi mu amoon ci sëriñ bi mu xëy rek wuyu ji boroomam suñu borom subhaanahu wa taala ndax nag ndegam soxna jaaraa dem liggéeykat bu mag ba mhm. dund lu weesu 33 ans mhm. moom tey mu nekkub taalibeem nekkub dongaam mhm. tox jaaroon ci ay tànkam mu xëy wuyu ji boroomam njaboot gi mu fi bàyyi bañ taxawaay lañu am jàmbaar la ku mel ni moom xëy na du mën a tee am waaye nag xëy na mën nañoo jaar ci ay tànkam ndax daayira bi nga xam ne mhm. mooy bay Fallou Maam Jaara yi mhm. au niveau de dakaar fii ak région yi mhm. mu yoroon ko tey rakkam ju ñuy wax Maam Jaara Ndiaye moom moo moo moo yor daayira bi ci loxoom la nekk léegi lañ doon jokkoo bi may laata dugg mu ni ma lii da ngeen ko waroon def avant Poroxaan waaye yow de kenn mënul wax dara ci Aïda Ndiaye te nga toog. yow rek mën ngaa wax ci Aïda. nañ nañ waaye ñoo ngi ànd ak wax gi. Mhm. Euh, après ñu dellusiwaat ñu xooli benn élément laataa loolu ñu ngi ziar bu baax a baax soxna Daba Thiam depuis Thiès ak borom këram Serigne Khadim Gueye is bu tarxiya euh, bu numéro 1 bu Thiès soxna Ndeye Mbène wilaanum Serigne Afia Cheikh Saliou Lo Cheikh ñoom ñëpp ñu ngi ñuy bàyyi xel ñu ngi leen di jaajëfal acca boog waa Rési bu yembee rek ñu dem jëli benn extrait daal di ñëwaat. xam soxna Diarra. gis nga daaw bi ñu annoncé nii Aïda Ndiaye Badalou faatu na ca Màkka xabaar bi njëkk a génn dañuy wóor wóorul suñu Moustapha Xasaayid sëñ Ablaye ba ma woo suñu Moustapha Xasaayid mu Cheikh Abdoulaye borom dër bi moo ni ma neel suñu Mountakha Aïda Ndiaye faatu na ndax man gis naa biig mu indi ab néew boo xam ne ab jigéen la ci biir bërëbu soxna jaara suñu Mountakha nangu ko te ko Aïda Ndiaye la wallaahi wal kitaabil aziim waaw nga xam ne kon te booba booba kenn gëmu ko ñu naan ñu naan sax wérul dañuy amul waaye si si Moustapha Xasaayit ñii moom moo wax ni moom waxal suñu ko ari ngay fa dëgg la de faatu na de faatu na ndax gis naa mën na ko ko ñëw bu jigéen bii ci bërëb soxna jaar bi at te kooku Adja Ndiaye nga xam ne kon nekk ci lu baax rek baax nekk ci lu baax rek baax liggéeyal sëñ bi rek liggéey liggéey sëñ bi rek nekk ci lu baax rek baax ah yàlla <laughs> ah, ah loolu loolu loolu loolu loolu loolu rek la sëriñ bi moom nekk ci rek baax yàlla damay ñaan yàlla yàlla ba suñ dara gën a sëriñ bi yàlla ba suñ dara gën a sëriñ bi yàlla ba suñ dara gën a sëriñ bi waaw yàlla yàlla dund gi sëriñ bi dee gi sëriñ bi dëkk gi sëriñ bi loolu rek am solo ànd ak ànd ak ne ci rek ne ci rek ne ci rek waaw ne ci rek Euh, macha allah mi ngi noonu la yàlla bu suñ dara génn sëriñ bi yéen a ko déggandoo extre boobu mu doonoon soxna su baax soxna su sell soxna su yéwén soxna soo xam ne lépp lu mu am ci njabootam ci koomum àddinaam ci liggéeyam lépp bàyyi na ko ci soxna jaara de seelatul soxna si dara nee naa la moo mënoon ca waañu poroxaan man ca soxna jaara ya fa nekk sas bi ko sëñ Moustapha Bassirou sasoon ba ba muy génn àddina taxaw na ci taxawaay bu rafet kon nee naa la soxna soosu bu bis bi amee tey yoon la ñu def hommage ci mom yoon la ñu fatali ko nit ñi waye yoon la ñu ñaanal ko ndax na kullu man alayha inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek lañu wax suñ borom le jugge fa lañu delu ta neena la yalla ñu bax ñi rek la bëgg ñu bax ñi rek la bëgg kon nak bi ngi dañ koy ñaanal sono defaatu nga nekkon ci point bu am solo muy taxawaay njabotam fim tollu ni bëgg nañ ñu ñu ñu ñu ci fofu bu baaxa baax waaw xam nga dama ne la mhm. mel comme mom ci soxna si mm-hmm. du yombul mm-hmm. ñun ñi doon ànd ak moom sax mm-hmm. raw nañu lu baree bare dama ne la dafa daan def te du réfléchir maanaam moom dundam da koo jeexal jaxase ko ak soxna si mës na maa wax ne ma Ndeye faatu mu ne ma ne ba wan ma fi mu bëgg ñu denc ko poroxaan xam naa ko léegi yow bu poroxaan jotee nga gestu gisoo soxna si waaw aal rek daf ñuy def aal saay bu ma duggee léegi daaw sax dewu daara ji dañ ma woo dama bañ ndax saay bu ma duggee daara ja ni ñu doon toogee fekk ko mu toog vidéo bi nga xam ne moom la ñu génne léegi mm-hmm. ana ndey faatu kaay taxaw su ko defee ma mën ko dooba bàyyi mm-hmm. ah, ana télé bi ana nàngam dégg nga euh, ñun ñëpp entourage am ñu ñëw toog mu ngi ci waañ bi mi ngi séddale mi ngi wax autorité bu ñëw yegg si ak ku ñëw ak sa àddiya ak li ñuy indil xale yéeg yëpp ci loxoom la ba tey Euh, euh, ñoom faatu Gueye ñi équipe bi nga xam ne moom la formé woon ak ñoom Fa Ndiaye Fallou ñoo fa mhm. nekk ba léegi mhm. ànd ak soxna maam a Dem bu euh, màggal comme tey jii mhm. dëpp démb ba léegi ñi ngi récupérer ñoom ñooy récupérer addiya yi ak yi ñuy indil xale yi ban ban yéeg-yéeg ngay am bu poroxaan jotee bu nga war a ngay imaginer ni nga daan jàkkaarloo weeg soxna Aïda Ndiaye bu metti bu metti parce que première année bi ñu dem poroxaan te te te fekkuñu ko fa équipe bi rek ñu xool xool mu nekk kenn waxul kenn dara sa moroom moom widd la woon année boobu kenn kenn liggéeyul dara. dafa metti kenn liggéeyul dara ndax jàmbaar la woon. Mhm. avant sëñ taxaa di wax sax lu jëm li mu wax nii sëñ Moustapha Bassirou moo ko njëkk a gërëm moo ko gërëm ñun ñu toog. mu ne mhm. ko gërëm naa la gërëm goo xam ne. Mhm. lii nga def si lii ngay def ci daara ja lii ngay def ci soxna si. gërëm naa la gërëm goo xam ne yaakaaratu ba ko fenn. Mm-hmm. waxu sëñ Moustapha Bassirou mm-hmm. yëkkati mbubbam bés boobu dafa yëkkati mbubb mm-hmm. te rangaal ko ko ne ko lii maa la ko jox loo ci bëgg rek fas ko ci fas ko boobu bu may tëj dinaa la ci jox benn benn anecdote ci mbubb moom pour won la ni nga xam ne noonu la dafa jeexoon ci ndax dafa dalaloon xelam ci daara ci te wallaay nit ñaa ngi ñëw taalibe yaa ngi barkeelu mhm. waaye ku mel ni moom mhm. moo amul ndax sëñ mu euh, Mountakha wax na ko mhm. wàccee liggéey ba mu koy seetal dafa ne est-ce que dinañ amati ku mel ni moom ci daara ji ku am taxawaay bu mel noonu loolu nag man amuma ko keneen amu ko kon lu rëy la njabootam nag liñ naan rek ñëpp a ngi ci ñu ngi ci waar wi ndax nee naa la daayira euh, Baye Fallou Maam Jaara yi nekk fii euh, rakkam bu ñuy wax Maam Jaara Njaay moo yor daayira bi di ko doxal ba tey ña ca nekkoon am na ñu ci wàcc liggéey yàlla na leen yàlla yërëm mhm. ñoom may mun a saw ñoom ñëpp na leen yàlla yërëm waaye am na mhm. ñoo xam ne ñi ngi fi ba tey mhm. ñu nekk si daayira waaye yëg-yëg bi ñi am moom munuma la ko wax fi ñu toll nii maa ngi wax waaye mun naa xam ne xëy na aal sax laay waxee waaw aal sax laay waxee yan yan kàddu ngay fàttaliku ci moom bu moment yi jotee dafa xoromu woon nag waaw ku xoromu woon la dañ daan bokk niig te ma jàppal ne dafa nekkoon nit koo xam ne d'une simplicité moom ñi amul dara ñooñu la jublu mm-hmm. elle était d'une simplicité extraordinaire mm-hmm. oyofam foo ko elle avait tout femme la am xaalis am alal am ay këram macha allah am léppam mm-hmm. mais musuma ko gis man ànd naa ak moom lu mat fukki at mosuma ko gis mu tëdd ci kaw lal néegam boo fa duggee benn mer gàddu moo fa nekk fa lay tëdd lalam da koy juug ay bagage ba mu fees mer bi ñaar lay def bu amee ku mel ni man ma tëdd si bii mu tëdd si bii garab yi wër ko. Mhm. elle était d'une simplicité extraordinaire te musuma gis ñu ñëw ne ko nit a lay seet ba mu naan kan laak lu mu mel. Mhm. da ko naan entre leen ko ma ñëw may leen ko ndox mu naan. Mhm. te loolu dafa jafe ci ko yàlla jox teraanga. loolu jàpp naa ko ci moom daana mun naa wax ne simplicité boobu ci moom laa ko jànge lu ne am na ko. Mhm. tissu bu mu am mu riche benn col ko la am. muy bàyyi laat benn mhm. solo la am ak la laafa am. Mhm. ku mën a woote nag koo mën a toll pale présidentiel amoon na relation ak président Abdou Diouf. dañ ko daan invité muy ànd ak ñun di dem. amoon na relation ak ab Ablaye Wade. Farba Senghor lañ ñu boole loon saay bu ñu soxlaa ay ceeb pour daara jëg yooyu yëpp. addiye yi moo koy woo sax mujj gi nag maman kaay jël si day faatu kaay Farba Senghor woon na ma. donc kilifa yu bëri la amaloon mais. amal ci kenn solu particulier mhm. benn solu la amoon muy tissu bu mu mën a am lu mu riche riche riche mhm. baylaat la koy dagg mhm. teg ci laafaam wuy ji te Aïda du wuy ji ngénte du wuy ji céet du wuy ji takk xanaa dee te bu paasee ndey faatu kaa ñu jaale am na ñu ñu war a jaale dajaleen àddee ñu dem yóbbu jaale wootewul xeb wootewul nga lu mu am maam jaara ak njabootam la ko yéen. jour biñ la annoncé ne la soxna Aida met metti na am naa mantulaay ak may ree ci réseau bi mais loolu saa bu ma ko fàttali ko dama sama àddina tukki. bésu tabaski la. maam Fatim Mbàkke moom Cheikh Mamadou Fadal mu soxna Juma sëy moo ma woo moom it da doon leerlu li ma waa ndey fa atu na nga def ñu waxtaan ma ne yaara maa ngi la dama ne woon damay bàyyi ba ñu pare xam nga tabaski dafa diis ma woo la siyaar la ndax bi fi Alaaji baa jóge mooy sama sëriñ ma mu daan ne ah déggoo dara ma ne ko lu mel nan fekk maa ngi yor hachoir te haché soble mu ne ma ah déggoo dara ci sa xarit bi ma ne ko sama xarit ban sa mag ji sax la ma wax sa mag ji ma ne ko sama mag jar ah. mu ne ma soxna Ayda Njaay ma ne ko Ayda ma nga màkk mu ne ma waaw booba yëgaguma man sax li xew mun naa mu ne ma ah dañoo wax ne de xaw ma kii bi am foofu moom da ci da ci bokk. ma ne ko déedéet Aïda miin ak ni mu xamee màkk ak ni mu miinee màkk. Mm. mu ne ma ban daal dafa mel ni da am na daal lu ma dégg leerlul ba pare. Mm. dama dugal sama loxo ci achoir bi sama baaraam bi gis nga. am naa mm. ñaari weer ma koy faj. ba mu infecté mm-hmm. ndax tiit. Mm-hmm. ah metti woon na. yaram daw metti woon na torop torop torop torop metti woon na parce que on était très proche. ngeen tax foofu amoon yéene si man. man nit ma am yéene ci moom. koo njëkk a xalaat bi bi bi émotion boobu dalee ci sa kaw kan nga njëkk xalaat. waaw bi xam na ñun nag groupe lañu woon ñu daan ànd ak moom. Mm-hmm. mais xalaat naa ndax moom ñëpp ñëpp la kii woon peut-être am na ñoo xam ne nag da daan ànd ak ñoom ci liggéey bi dëgg dëgg dëgg am na yoo xam ne bu dee màggal ñépp ñëw. Mm-hmm. mais am na yoo xam ne bu ko dee dox. Mm-hmm. waaw. xalaat naa sama bopp. waaye xalaat naa itam sa petite sœur bi nga xamee ne. Mm-hmm. dafa am fu mu ko tegoon ndax da ko doon jàppale ci léegi d'ailleurs daayira bi ci loxoom la nekk léegi. Mm-hmm. waaw xalaat mm-hmm. naa ko bu baax mais xalaatoon naa sama bopp man san ay dajaay. parce que damaa demoon ba dafa bokk sama dund. lu ci bëri su ma génnaan moo ma génne. ñu la ko nga ñu daan ànd léeg-léeg day jékki-jékki ne man day faatu mu ne ma tey de Porokhane la ñuy fanaane ma ne ko ay ay de lu xew. mu ne ma ah, maam jaara daf ñu niit tey. daal di làkk anglais yi ni ma maam jaara def ñu nit tey mhm. ma ne ko acca mhm. ñu daal di takk mhm. mu ne ma waaye dañuy jaar ci yaayam de bu ko defee ñu jaar naawel di jullee fajar ba pare continuer dem poroxaan yéen bari na lu ñu fanaan ci buntu poroxaan man ak moom tëdd euh, foofu euh, ñu annoncé le ah. décès soxna Aïdi Ndiaye ah, nga war a jóg ah wutali këram feebar kay laa def moom moom kay feebar naa ko ay fanafan keroog bësu ñaanam bi nga yeggee ci kër gi nga xool environnement waaw sama àddina tukki na ndax keroog fi ma toogoon fa la ñu mujj gisante. ngi fa nga fa nga mujj gisante. fa ñu mujj gisante. nga ñëwaat di xoolaat jotaay bi. waaw ma ñëwaat jotaay fa ñu gisante fa ñu toogoon ci buntu këram. foofu laa bi ma ñëwee rek foofu laa jubal toog. fekkoo ko fa. waaw te booba dafa fekk mu ngi chantier këram. Mhm. mu woo ma kër boobu maa ngi baaw baab. mu woo ma ne ma ndey Fatou mu ne ma kaay damaa yàkkamti. mu ne ko ci ay da dama sonn mu ne ma. barke soxna jaara soo ñëwul lu bon a lay dal mhm. daa di mel ni ku àllu ma ni yii lu xew ma daa di daw mhm. bi ma ñëwee maa ngi ko fekk ci buntu kër gi mu toog janoog chantier bi toog ci suuf mhm. bi ma yegsee ak taxi bi wàcc mu ne ma ñaw <laughs> yéen ngeen kon yéen yéen xam ngeen sax doole soxna jaara mu ne ma man lu ma soxla ci barke soxna jaara dama koy am daf ko gëmoon ba muy dëgg bu toog yow ci soxna jaara sax moo lay gañe mhm. parce que daf ko daf ko gëmoon ba pare mhm. dund ko mhm. ma daal di yegsi daal dina ko ay dulu xew mbaa jàmm ma toogal daal ne duggal jël chaise ma ne ko ah ma fekk li ci suuf di toog ci di toog ci kaw fii laay toog ma toog ci suuf mu ne ma nga sama chance bi sori na de booba doomam bu ñuy wax Cheikh Mbacke bi ngi door a gaañu mun na ma gis nga néeg bee Cheikh Mbacke laa ko doon defaral gis nga yàlla def na li gën. Mhm. day faatu teemaa wax sa nijaay sax nga ñëw dëkk ak man man loolu moom ak kii. may reetaan naan ko ay yaa neex nag. di kii ne ma ne ko yow kay fexee rek saa boo ma rek woo ma ma disponible ñu dem. kon kàddu yooyu ngeen mujj waxal. loolu la ñu mujj wax mu daal di ne ma damay yóbbu doomam bi nga xam ne dafa gaañu ñu tuddee ko àll seen àlla. àlla loo. moom it ginnaawam la dem. Mhm. dafa def choc ci. màggalu poroxaan bi topp ci bi mu décédé. ndeysaan waaw mu mhm. di ma àll mi laa bëgg yóbbu ren màkka mu mu dem si euh, euh, kii mu dem siyaare ji mhm. waaye déwén man ak yow ak Murit Njaay ñooy ànd màkka ndeysaan man ak ay de loolu neex na waaye mhm. man moom fexeel ba ma ñëw rek dëkk sa kër loolu la ñu mujjee waxante ñu wax man ne ko léegi loo ma doon doyee mu ne ma dama laa namoon rek toogal naka suukar si naka nàngam ñu waxtaan mu ne ma léegi su may jógee ma su ma demee ma mais ba mu nekkaan foofu dañ daan wootaan léeg-léeg bu soxlaa dara dafa may woo mm-hmm. ne ma doxal ma nàngam nangam daf ma daan yónni léeg-léeg ci mm-hmm. yenn yi mm-hmm. léegi nag mu ne ma ba ma dem su ma yeggee dinaa la woo kër loolu la la ñu loolu mooy suñu mujjee waxante donc dañu amoon mbébét amoon ay projet yu mhm. bëri nag yoo xam ne bëggoon na ma si dugg waaye li naan rek lu jot yoom ak yàlla dogal mhm. fal yàlla dogal année boobu 2015 boobu 24 septembre boobu defe naa kenn dootu ko fàtte sa première guddi mu dem xalaat ne ah waaw yow soxna Aida nekkatu fi ah waaw loolu jël parce que am na lu bari lu manqué woon ci man dafa meloon ni sax saalituma waaye dafa meloon ni sax xëy na dafa am lu mu téye woon ci sama dund. Mhm. waaye li ko waraloon rek mooy xëy na complicité bi ñu amoon. ak amour bi mu amoon ci man yërmande bi mu amoon ci man. Mhm. jàpp gi ma jàppoon. xam nga ndax soxlawul woon ci man dara peut-être xëy na sama xel sama xalaat. Mhm. ndax bu doon defal moom moo may defal. ndax xëy na lu mu amoon macha allah man amuma ko. waaye daf ma yërëm woon. bëgg ma te muy dëgg te loolu dafa ëpp. ça ça va au-delà de de de lu nit di am. Mm-hmm. loolu leneen la mm-hmm. nga am cofeel ci nit ba wan ko ko ba muy dëgg ba mu xam ne moom mii danga ko bëgg mm-hmm. loolu dafa cafe te loolu moo nekkoon sama relation ak la daan dundee yéen waa staff bi très sociale c'est une femme très très très sociale ci néew di doole lay xëy ñi nga xam ne dañ daan woor boo demee fii ci Castor ci ci ci buntu Euh, juma castor bi. Mhm. yaakaar ne ku fa doon robb wala nga dëkk ci environnement boobu. Mhm. daan nga gis day jugee foofu liberté. bu à partir de 18 heures. Mhm. togg ay ñam di indi foofu. ci koor gi man image am ma koy bëgg di di di xool. xool ko tuuti rek nga ko tuuti ci damay damay dégg si moom. damay wax di ñuy mais c'est trop fort. xoolal image bi rek xam ak ak ak ak njaxas bi nii mu def <laughs> da ngay ñaanal ko rek ñaanal ko ñaanal ko rek nga nga nga xool image bi <laughs> xoolal image bi rek ah mu ngi noonu waa Rési xam naa ñoom it dañ lay yërëm ci ci ci kii yi rek mi ngi noonu ku ko xool tubaarikàlla mu nekkoon jàmbaar soxna Aida Ndiaye oh, macha allah émission bi la ndax nit ki boo nekkee ak moom ay at ngeen bokk di liggéey mu xëy dëddu bàyyi la fi yow ak estafam ak njabootam ngay gestu di gis njabootam te gisoo ko day metti hmm. ngay xalaat na muy solo laafa ba. on avait plein de projets mais. yàlla jeexul waaw on avait elle, elle est très ambitieuse. Mm -hmm. c'est une grande dame cette dame là. Mm-hmm. boo ko fréquenté wul doo ko xam. benn jour dama ko wax ma ne ko soxna Aïda mun naa ma ne ko xam nga nit ki boo ko moo tax nañuy bàyyi di juger. Mm-hmm.

soxna jaaral la ko yéene Serigne Touba jeex. Mm, mm. loolu ñëpp xamoon nañ ko ci moom. ñëpp ñëpp ñëpp ñoo ko xamoon ci moom. Mm-hmm. te ah, elle avait une très bonne adresse. Mm-hmm. foo doon dem sax te xamuñu la soo tuddee turam rek. Mm-hmm. ñu jox la audience boo xam ne sax yow mérité woo ko. et loolu c'est très important. marqué na époque am. yàgg na fi yàggu parce que soxna si tey 33 ans rek la fi def. waaw waaye boo gisee tey. jalooreem ba tey ñu ngi koy wax mu mel ni démb mhm. c'est parce que dafa nekk lu baax mhm. moom tamit li nga xam ne moom la liggéey ci yoon bi liggéeyal ko soxna si mhm. du mës a ràpp du mës a faay parce que daf ko defu ko ak tricherie defu ko rek parce que dafa bëggoon si wala dafa bëggoon si parce que defe naa fii ci boo xoolee ci euh, jamono yi boo xësee am teraanga yaakaar naa ne mel na ni yaa gën ñëpp sax ah. wala mel na am na fuñ lay teg mm-hmm. sax foo yeggul mm-hmm. mais moom ni ko yàlla mayoon teraanga noonu la oyofe woon mm-hmm. dama ne la musuma ko gis mu tëdd ci kaw lal moi je l'ai pratiqué pendant presque plus de douze ans je n'ai jamais vu Aïda Ndiaye ci kaw lal jamais waañ bi ba tey mi ngi ci loxo njaboot gi wala sëñ bi da koo jox keneen waañ bi ba tey mi ngi ci loxo njaboot gi ñu ciy def nag ba tey lu ci kenn mënul sëriñ Muntaxa toog naa mu toog bi muy gërëm mu di ko wax gërëm na ko laataa mu fi jóge bi mu fi jógee it wax na ko nee na ndax dinañ amati ku mel ni kii ki taxawaayu daara ji ak waañ bi mhm. waañ bi ba tey mi ngi ci loxoom dégg naa sëñ Muntaxa ci gémmiñam sama nopp mu ni waañ wi tànk njabootu ay dajaay ba delloo delloowuñ ko duñ ko mës a jël mhm. te xam naa ni loolu du mës a am mais ñi daan jàppale seen waajur ci ci ci liggéey boobu est-ce que ñoom it ñi ngi leen di jàppale ba tey waaw xam nga nag léeg-léeg xam nga ñu naan nit li borom kër li mu mën ci këram am na mm. loo xam ne boo demee da ngay yóbbaale lu bare mm-hmm. waaye moom dafa nekkoon koo xam ne maam jaara dama ne la amu ci limite amu ci sago su naree rayanteeg yow léegi tax maam jaara da da koy def da lay bàyyi mm-hmm. xoolul li nga koy jural ëllëg wala li nga koy am ëllëg maanaam soxna si la tegoon au devant moo doon priorité mm-hmm. doomam yi nee naa la doomam jox na ko fi cinq cent mille mu ne ko duma ko laal li nga am moo ëpp loolu li la yàlla yonent bi ak Sëriñ jox moo ëpp loolu kon jox ma tàng may jox. Mhm. ma yóbbu ci soxna jaara mhm. loolu loolu xam nga xam nga xam nga barewul. Mhm. waaw loolu xam nga lu lu lu lu mu war la ne ni nga xam ne rek noonu la toll woon ci soxna si noonu la soxna si toll ci ma waaye nag fi yàlla fi yàlla tànn. ne fa lay des. fa ngeen gi bindeef tëdd. yaakaar naa ne génnul soxna jaara ndax waxoon na ma ne fii laa bëgg bu ma bu ma nel faatoo fii laa bëgg tëdd. soxna jaara laa bëgg dëkkaaleel ba mais xam naa ne rek xëy na. ci ci ci zaahir ñun dañuy wax rek waaye man gëm naa ne dëkkaale naa ma nga ca wetam ma wetam ndax liggéey na ko mhm. ay sëtam prouvé nañ ko ay doomam mhm. prouvé nañ ko li mu liggéeyal soxna jaara yaakaar naa ne daayira yaa ngi liggéey ñu ngi def lu nekk mais ayda moom lu waaye def poroxaan moom nga ko def ban relation la amoon ak tout tànk yi rawatina ñu nekk poroxaan ah waaw gis nga ko gis nga kon bi muy wax ak ñoom toujours dañ daan def bu ñu màggalee ba sa suba bi mhm. man dama daan yóbbu télé bi dem toog ak moom ba ma nekkee Lamp faal ba ma daan yóbbu rajo bi dem télévision bi aussi dañ daan dem muy wax cofeelam ak fi mu toll ci xale ni ni nga gis mu doon defee rek loolu moo lay wan ne euh, sot kii bu dafa amoon na cofeel ci xale mm-hmm. ndax fu borom nga nekk woon na la nga indi yére woo na la nga indi dàll mm-hmm. woo na la nga indi kaala uh-huh. Euh, kaamil. Mhm. bàyyiwul dara. lépp euh. loo xam ne xale yi dañ koy soxla. mu def ko moom moom tegal sa baaraam ñu dem rési xool benn euh, élément témoignage bi ñu doon def ci moom daal di dikkaat waa rési bu élément bi yombee bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. mbokki jullit yi mbokki taal bi ñoo leen di nuyu te di leen ziar di xamle ne soxna Aida Ndiaye moom. kenn ñàkkul ñun ñoo ñàkk ñun ñi nga xam ne ñoo féete ci daara ji ndax xëy na ñëpp ñàkk nañ waaye liñ jort daal mooy ne ñun moom ñoo gën a ñàkk ndax ni meloon ci daara ji waxuma la lim fi daan joxe rekk ak lim ñu daan defal waaye bëgg gi dong dafa doyoon sëkk dañoo maasale woon ñun ñëpp mu bëgg ñu comme doomam jàppee ñu comme ay doomam walla sax ñun mën nañ ne ñoo ko gënaloon ay doomam euh, xale yi bu dem nañ ba bu màggal masaana jub si wala gàmmu daanaka dañuy mujj bég ba nga xam ko fuñ toll dañ koy séentu ba baa muy agsi buñ xasee ba am feet rek ci lañuy ñuy commencé di ko séentu bis bu set dangay dégg ñu commencé yoxaloo xaloo naan yaay da njaay ñëw na yaay da njaay ñëw na yaakaar guñ yaakaar ci moom yërmande ju mu am ci ñun ñun daal ñàkk nañ te xam nañ ni tamit ñàkk nañ lool ñàkk nañ xëy na loolu moo tax mënuñoo guddal suñ kàddu waaye ñuy ñaan suñ boroom dolli ko yërëm comme ni ko seen bi waxee rek wan tasali ko ngërëmam ak ngërëmul sëñ Tuubaa te yërëm ko te jéggal ko xam nañ ne ñàkk nañ lool daal macha allah mi ngi noonu yaa ko dégg noonu xale bi gis nañ bi muy wax ngay tuur ay xéewal ban yëg nga am ci xale bi di wax. dama daan dama daan fekkee lii dama daan fekkee xale yi bu ñu xëyee suba bu ñu màggalee ba su béyu ak bésu màggal ak suba sa yëpp xale yi dañ daan xëy di ko wayal wër ko dama ko daan tooj naan ko yaay sëriñ Saaliw bu jigéen xale yi ndax xale yi dañ daan yéeg ci kawam yéeg ci kawam ba dootoo ko gis. ndeysaan ku nekk di xëcc fii yaa ay te yaa ay te ndax cofeel bi mu am bu ñëwee yegg si dañuy mel ni xale yi ñëppay daw. Mhm. ku doon nelaw dangay yeew. xale yi mhm. bu ñu xëyee dañ koy wayal. Mhm. am na dama dama dama jaxasoo démb ba xaw ma sax mais am na vidéo boo xam ne xale yi dañ ko ci defal ay way yaakaar naa ne ku ko xool si internet bi sax dinga ko ci gis. di ko woyal ndax fi leen toll. ñi bëggoon a ñëw loolu tax na ku ñibbiwaan seen kër sax dem vacances. di wax ne leen ay dëgg yi yeneen xale yi nga xam ne tudd ñu maam jaar am na benn xale bu ma doon wax mu ne ma day faatukaay mu ne ma tey benn kaa laa am waroon ngaa ñëw en tant que journaliste nga rek nga nga kiiwal ma kaa bi ma ne ko la mu ni ma benn xale daal moo topp eh, yaayam la àndal ak eh, ñu ñëw poroxaan ñu ñëw seet si benn maam jaara bu nekk si daara ji mhm. xale bi ne du ñibbi maam léegi nañ nañ ko tuddee maam jaara mu toog ci daara ji ko jooy ba mu jigi ñëpp àndandoo di jooy ma ñëw mu ma koy expliquer di ma wax naan ma ñëpp xale yëpp léegi bu ñu ñëwee foofu dañuy bëgg. Mhm. tudd maam jaara pour nekk si daara. Mhm. moo tax ma ne yéene bi nga xam ne sëñ Moustapha Bassirou amoon na ko. Mhm. ci am junni maam jaara. yaakaar naa ne yéene boobu ay datam noonu la ci dañu wax naa toog ba junni maam jaara yi bu ñu ñëwee ba mu mat junni. dama koy célébrer ba ba ba gi yëpp xam ne daara ji am na junni maam jaara. yaakaar naa ne ñoo ngi ci juróomi téeméer ak lu topp. Ah xëy na balaa yàgg. dina mhm. maam Dia parce que tam du du du lu nekk la ñuy la ñuy duggee. dafa am mhm. ay critères. pour mhm. dugg foofu. moo tax sa xanaa ba tey junni bi ma tagul waaye daal taxawaay bi mu amoon ci xale yi dañ doon namm lii. saa bu ñu ñëw dañ ko doon xalaat di di janeer. yegseem ci daara ji. ak bu ko xale yi di teeru. Euh, moom bu daan def lii toog xale yi di ko wër lan ngay gis ci kanamu soxna Aïda. fierté fierté. kontaan dama ne la dundu Aïda sëñ Touba la soxna jaara mhm. rawatina soxna jaara sax mhm. moom buy waat sax soxna jaara lay waate mhm. lépp soxna jaara bu lay tëkku sax <coughs> barke soxna jaara nangam ak nangam koy wax ma ne ko Aïda mu yenn saa li wax ma ne fa yàlla da laa jubaleeg soxna si bàyyil di tëkku nit ñi waaw boo ko tooñee li lay wax ci mbubb mi ko sëñ Moustapha Bassirou joxoon benn jour daf ko ne loo ci bëgg loo ci bëgg rek mun nga ko ci am am ku ko tooñ Mm-hmm. tooñ bu flagrant sax mm-hmm. mu woo ma Ndeye Fatou Ka journaliste ka ma ñëw mm-hmm. mu ni ma daa am ku ma tooñ daal di génne mbubb mi wax ma expliqué ma pare ma ne ko léegi nag mu ni ma barke soxna jaara mbubb mi laay sol ñaan ko yàlla pour na ma daal di koy xool ba see ma ne ko ah, mu ne ma ne ko ah, léegi yow de kon xanaa am nga kon lu la dese ci soxna yi man dama defoon matal nga ci soxna jaar mhm. ci yi ma la gis ngay def kon nag yow am nga loo desal ci soxna jaar déggoo ñuy wax yaa fi wax naa soxna jaar da daan muñ da daan nàngam mhm. di ko wax ay kii mu jékki-jékki daal di simmi mbubb mi mhm. ma bàyyi naa ko waaye lim ma def na xari na ma ma ne ko mu ngoog mi ngi noonu mbokk yi ñuy bàyyi xel xam naa dañuy ibbi téléphone bi ngir mm-hmm. ànd ak mbokk yi ci waxtaan bi ndax yaakaar naa ca suba ba léegi ñu ngi ñuy bàyyi xel te yaakaar naa ni bëgg nañoo ànd ak ñun ci jotaay bi dañuy def 88 628 08 18 88 628 08 18 noonu ngeen di def daal di ànd ak ñun ci jotaay bi mi ngi noonu soxna Aïda Ndiaye Badara la ñuy waxtaanee tey nekkoon jàmbaari soxna jaara nekkoon koo xamante ne liggéeyam yaatu na lool ci soxna jaara mm-hmm. ndénkaan lu la ko Serigne Moustapha Bassirou dénkoon mu nekk ca nekk ca ba ni mu wuyjee boroomam ginnaaw bi mu wuyjee boroomam njabootam gi <coughs> ñu baal ñu ñu ngi continuer ci liggéey boobu nekk ca waaye ba tey day Ndeye mbay Mbengue moom Serigne Fallou nekkoon ku taxawoon ak moom nekkoon ku ko jege nekkoon ku ku ku bëggoon ko loolu ndax gis nga noonu waxtaan bi yépp mu ngi jéem a téye boppam ngir bañ tur ay xéewal mais nag nee naa lu ne ci xol feeñ ci kanam bëgg gi mu ko bëggoon ak yëg gi ak place bi ko soxna si tegoon looloo waral lii lépp tey mbokk yi ak ñun ci waxtaan bi ci 88 628 soxna day Fatou hmm. lan ngay wax jigéen ñi nga xamante ne ña nga poroxaan ndaxte nee naa la waajtaayu poroxaan bi metti na soxna yi buñ dee dem lu nekk ñu def ko te buñ jëlee royuwaay wala référence ci soxna ay Ndiaye mii koo xam ne benn yére nga daan sol te am li nga amoon ci koom àddina waaye nag lépp loo am yéen nga ko soxna jaara kon yaakaar naa contraire la ak jigéen ñi nga xam ne tey bu ñu dem poroxaan ñu ngi pose angle pose euh, dajale ñetti yére ñeenti yére dem di sol di semeeku di photo di vidéo lan ngay wax mbokk soxna yi amul njëriñ. Mm-hmm. ndax saa su nee dañ ko daan wax fii saay bu ñu amee plateau ñu koy wax jigéen ñu wàccaay bi riir mi bari lool coow li bari lool joxe dinañ joxe àddiya waaye li ñuy jafal seen bopp ci bernde yi ci colko yi lépp mun naa wax ne amul benn njëriñ yàq la mm-hmm. yàq lay mujje doon mm-hmm. ndax dañu war dañoo weesu soxnaa su uh-huh. fu ñu naan fu ñuy répété rek maam jaara defoon na lii téye woon na sàkket bi demoon na ca ca nu mu tuddati ci ci teen ba uh-huh. du ñu war a weesu foofu uh-huh. te xam ne ñun ay jullit lañu bu fekkee ne féete moo ñu tax di wax dañu war a xool ni maam jaara doon defee ci jaamu yàlla ndax ñun folklore biñ ci boole dafa bari Mhm. chaque année ma wax ko saay bu ñu amaan plateau euh, maam euh, Porokhane mhm. damay ne jigéen ñi mun naa mën a ko bu leen dem rek pour dem mhm. ndax gis nga dem dafa metti waaye nga dem yóbbu dara indiwoo dara amul njëriñ ndax dëkk bu mel ni Porokhane ak na mu meloon ak ni mu mel léegi ak ka tëdd yaakaar naa ne boo fa demee ni nga fa war a demee ci anam yi nga xam ne noonu nga fa war a dem boo dellusee war nañoo gis ci yow lu tax lu la lu mm. lu xam ne yow mii kat lii nga doxi woon farata la te nekk na lu lu lu lu am njëriñ. waaw mm-hmm. ah, mm-hmm. foofu la ñu toll. Mm-hmm. tey jii téye sàkket baax na liggéey mais Soxna Maam Jaara dafa liggéeyal boroomam. jaamu yàlla. ndax yaa ngi dégg toujours. Mm. li soxna Ndeye Fatou nañ jël ki nekk ci. salaamaaleykum waaleykum salaam waaleykum salaam ah, soxna si maa ngi leen di ziare. ñu ngi delloo ziar bu baax baax sang bi. di rafetlu waxtaan wi. ñu ngi lay jaajëfal tur bi ak foo ñuy wooyee. Hmm. xare ko àjjana. amiin allahumma te yéene ji mu amoon ci maam Jaara Buso yàlla na ko motal. Hmm. allahumma ngi siyaare soxna soosu ko teebal ci plateau bi moom it. Hmm. bi ñu seetaanee léegi xale bi def interview. da dama dama dama jooy. xamni xamni def lu baax rek mo am solo ci àdduna mm-hmm. ndax euh, xalé mom da doon mm-hmm. so ba mu lay mu lay ak di la ci zo bo jëm sé ci moom mm-hmm. xamal ne amaloon nga ko jarig bu reey reey rëy comme li ngeen wax nak ci ci manam dem fa di di posi ongul ak di def lo xamanteni ci mengo méngoowut ak ka nga xamanteni ci mom ngay fekk lam nekkone Mm-hmm. loolu gënul. Mm-hmm. wax dëgg yàlla depuis ci suba ak léegi maa ngi tëdd sama saal di toog di di di taaxeerlu émission yi. waaye daal Touba TV daal wax dëgg yàlla. Mm-hmm. yàlla nañu sama borom doolee taxaw. allahumma amiin doolee leen a dimbali. ñu ngi rafetlu kàddu yi bu baax a baax a baax di ñaanal sonn soosu. ndax wax dëgg yàlla moom it nit ku baax la. ndax euh, nit ku baax mooy mooy mooy mooy moom la fi nit di jógee muy muy muy muy seede ci moom ndax. wax ju jógee rek lay ndax loolu muy wax noonu ma wax mbaaxu morom wàññiwul dara dara dara ci sa mbaax déedéet déedéet te nit ki lu mu wax rek si lu maanaam nit bu bu bu jikko yoo xool si nit muy jikko yu rafet nga wax ko rek maanaam am na ay qualité jikko yu rafet yu nekk ci yow ba nga mën a seere loolu waaw waaw loolu de am na moom ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax suñ borom féete ko fa ko soxna Ayda féete woon ndax wax dëgg yàlla <laughs> suñu xool dafa fees li li li li yéenee wax lépp lépp lépp sax mënuñu ko wax. waaye sant yàlla rek yàlla nañu yàlla doole dimbali daal. amiin amiin ba lépp lu ñu bëgg ci lu baax rek suñu borom eh, dimbaliñ suñu kéem lay kattan. amiin amiin. kontaan nañ bu baax jërëjëf jërëjëf sang bi jërëjëf. jërëjëf mbokk moomu mm-hmm. jaajëfal nañ ko bu baax a baax way leen di ànd ak ñun. ci 88 628 08 18 88 628 08 18 ngeen and ak ñun wa Touba TV. Mhm. gis ngeen ne ci suba ba léegi ñu ngi ànd ak yéen ci suñu ay plateau spécial yoo xam ñu ko féetale ak Soxna Jaara waaye dara rawu leen tamit ca dëkk bu sell bi nga xam ne moo ndax nee naa la mhm. équipe ña nga fa di leen jox lépp fa ni mo xam cérémonie ba mo xam ziar ya lépp lo xam nek amna fa ci programme di ngeen ko am en direct ci Touba TV. Mhm. kon way leen di and ak ñun suñu ay programme soxna Ndeye Fatou bëgg naa mhm. nga ñëwoon ñu ci jigéen ak liggéey mhm. ndax soxna Aïda Ndiaye ku doon liggéey la yamutoon ci jëfal soxna jaara rek mais di daan liggéey di wuti ji ngir indi ngir dajale ngir defal soxna si te ku xam soxna jaara xam ne tamit moom it euh, ñu jël ki ci ligne bi mbokk mi salaamaaleykum aleykum ngi ziar bu baax jëwrin salaamaaleykum waaleykum salaam wa ku baax ki ñu ngi lay ziar السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله soxna si na ngeen def. ñu ngi sant bu baax a baax Diorin. waaw yéen a ngi si jàmm. ñu ngi sant alhamdulilah alhamdulilah. xam naa déggante bi moo xaw a naqari tuuti rek. waaw waaw kàddu gi moo xaw a suufe lool. salaamaaleykum. mu mel ni ki ne déggante bi moo xaw a sant mbay. ba tey mbokk yi mën ngeen a ànd ak ñun ci 88 628 08 18 88 628 08 18 ngeen ànd ak ñun ci plateau spécial Soxna Jaara mm. Soxna Ndeye Fatou bëggoon naa ñu ñëw ci liggéey ndax ku xamoon Soxna Aida xam ne ku doon liggéey lay doon kuy génn di dem ci ay réew ngir liggéey waaye la muy liggéey comme moom ca dajale da koy indiwaat ci soxna si Soxna Jaara mi tax mu daan liggéey kenn ku ne xam ne daana ràbbu ay sër di ko jox dongo yi ñu koy def mbalaan di ko sàngoo te loolu lépp ci liggéey la bokk jigéen ak liggéey est-ce que jigéen war na tëdd rek. damaa gëm ne soxna Aida Ndiaye yal na ko yàlla yërëm. Mhm. li mu réussir. Mhm. ci liggéeyal soxna Diarra. Mhm. bokk na ci li ci ëpp en partie. mën naa wax ne liggéey moo ko ko may. ndax dem na ba liggéeyu boppam bi mu demee ci liggéey la la nee naa la femme d'affaires la. da daan business di dem fu nekk di jënd di jaay lu lew rek ay di jënd na ko jaay na ko. di yor njabootam di def ci ci ci yo yo liggéeyu yoon bi mhm. ba doomam yi kenn ku ci nekk yàlla may la teraanga ngay demal sa bopp mhm. waaye terewul ba tey loolu daf ko wéyaloon di ko continuer mhm. mais dama laa bëgg wax ne la lépp loo nga xam ne lu ci bëri loo xam ne réaliser na ko demoon na ba bàyyi liggéeyu boppam saay bu demaan Amérique dama daan wax ne ma ndey waat sama njaay maa ngi ni ma def sama oto bi takk ko taluma ko damay laaj àddee soxna jaar di dem te loolu nag ñi ko mën bariwul déedéet dafa neex. état par état la doon dem di laaj soxna jaara di ñu di ñu jël mbokk moomu mhm. ci ligne bi salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah ku baax ki ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di ziar. ñu ngi delloo ziar bu baax a baax. waaye na nga am jàmm. tur bi ak foo ñuy woowee. maa ngi leen di wooye yëmbal Route des Bounes yëmbal Route des Bounes ñu ngi ziar waa yëmbal ñëpp ñu ngi leen di ziar di ñaanal suñu yaay ay da ba daloo yal na yàlla doon di xéewalam doon ay leeram amin amin di ko ñaanal mboolem ñu ànd nag moom liggéey bi te duut ko taxaw mhm. di xamal ne sunu mbokki yaay yi nga xam ne ñoo di ay soxna mhm. nañu bàyyi xel ne mm-hmm. yàlla amut lu muy maye lu muy jaay la am mm-hmm. te li muy jaay mm-hmm. lépp lu baax loo xam ne ni tey nit ñi dañ ci topp di ko jéem a royaat ku ko yombal sa bopp yaa ko xañ sa bopp moo tax ñi nga xam ne dañuy jóg fagu fii di dem poroxaan bu ñu doon def chaque année ñu indi benn jikko boo xam ne ni dañu ne lii kat ca maam jaaraloon ci jëlee te mu doon mm-hmm. luy sàmm ba ak mi del si mm-hmm. yaakaar naa bu ñu matalee jikko yépp day mm-hmm. bu ñu dabul soxna itam dina aw ci ay tànkam waaw ndax ki nga xam ne ni moom mooy àdduna bu lépp jagee bu jagee lépp jag kon war naa góor góor góorgóorlu fexe lépp jag parce que ñaar buñ dee liggéey Mm-hmm. te bu liggéey bi jagee mu am kun ko jiñ mm-hmm. bu liggéey bi jagadee am kenn koo xam ne moom rekk moo cay wéet mm-hmm. ndax doo gis mukk ci àddina kii kat li li ko dal ndey bàyyam a ko liggéey déedéet déedéet waaw kii liggéeyu ndeyam la rek lañuy wax kon sunu yaay yi fi nekk ci jamono ji ñu toll nii maam jaara defaral na leen loo xam ne ni tey ñoom waral nañoo mën a yeggale seen mission ci bañ a topp tubaab yi mhm. ndax tey jigéen bu toogee du dem ci dàgga mhm. du dem ci teen mhm. du taxani presque mën naa la wax ñi fóot ñu niiw la kon lu war na leen yomb xam ne maam jaara préparé na leen lu leen noppal ci àdduna waxatuma laa nag lu jëm alaaxira uh-huh, uh-huh. kon ku ci góor góorgóorlu rek xool fi ngay teg sa tànk bu soobee yàlla dinga nga yegg fi nga jëm uh-huh. ñu ngi leen di ñaanal bu baax nag ñaan yàlla yal yàlla taxaw ñëpp ba yeggale seeni mission góorgóorlu ci diine ji amin amin ndax sëñ Muntaxa day jàpp na ne mm-hmm. eh, maanaam ñi jamonante moom mm-hmm. ñépp ko ci xool jël sa vision teg ko ci moom di nga xam ne borom positif la te yow mi dajeeg moom jamono ba mm-hmm. góorloo tuuti rek nga arrivé dina la yomb ndax sëñ mu daxaa fi mu nekk ak fi mu àgg tey Oh, mbokk moomu hmm, rëcc na mais contribution ma lu solo bu baax a baax ñu mm-hmm. ngi koy ziar di ziar waa yëmbal waa de Boune ñëpp ngi allah ni mu duggee am solo la wax na bu am solo nee na bu doon soxna yiy dem année bu jot bu e jël fa ben jikko bu jikko boobu bu ñëwee appliqué ko ba beneen année bi ñëwaat yaakaar naa bu ñu jëlul jikkoy e soxna yëpp dinañ ca yor loo xam ne leen euh, satisfaire ci seenu am solo bu baax a baax mais nañu continuer nga dikkaat ci wàllu liggéey soxna mm-hmm. si liggéey dafa am solo. Mhm. waxuma sax jigéen mais nit dafa war a liggéey. Mhm. ndax xam nga ñàkk liggéey. Mhm. bari na tey ñu mu dugal ci loo xam ne waruñu ci woon dugg. ndax tey bu fekkee ne am nga loo bëgg. te mënoo ko amal sa bopp liggéeyoo. ah gis nga fi tey ñuy def lu ne loo xam ne jaaduwul. te ñàkk liggéey léeg-léeg ah, te bëgg dara moo koy waral. du dëgg. te ci toll nañ ci jamono boo xam ne gis nañ ne. nouvelle technologie yi dafa yaatu gis nañ ne lu nekk mi ngi jugee nu ne mhm. ouverture frontières yi lu nekk de lu ñu xamul woon am na ñoo xam ne li ñu xamul woon daaw xam nañ ko ren li mhm. ñoo xam ne li ñu xamul woon daaw jéeg xam nañ ko daaw mhm. donc ouverture yi yooyu yëpp day tax day tax nit ñi di am ay bëgg-bëgg di am yu ñuy bëgg di dugg di am yu ñuy dugg di génn te euh, euh, duñ ko matale kon liggéey Mm-hmm. te liggéey ko ci anam bu lew mm-hmm. bu jaar yoon bu mm-hmm. parce que xam nga ñun dafa am fu ñu tënku ñun ay jullit lañ comme te ay jullit lañu dañuy roy ci ki nga xam ne moom la ñu fi yàlla tegal ñoom mhm. ni ko muy sunu yeneen sallallahu alayhi wa sallam ñu baax ñi ku mel ni Cheikhul Khadim wax na mhm. ci liggéey liggéey mhm. dem na ba mel ni eh, ñu di ko tëkkale jaamu yàlla da ngay dégg toujours ñu ne liggéey jaamu yàlla la ci bu lewee nga am ci la kon loolu mooy am sa tax sonn ay da tey ji lii nga xam ne moom la moom la liggéey tey jii am na loo xam li mu réussir peut-être mun naa am bu liggéeyul woon du fa yegg am na solo am na solo ñu dem xool yi témoignage bi nga xamante ne Serigne Mountakha Mbacké Basir defoon na ko ci soxna Aida rési bu yembee rek élément bi ñu dem dikkaat. sunu borom mi nu booleeg sëriñ bi. sëriñ nee na mi ngi doolee sant sunu borom mi nu booleeg sëriñ bi. di gën a sant sëriñ bi. di gën a sant sëriñ bi. di ko gën a di ko gën a jox suñu lépp. di ko gën a jox suñu lépp. di ko gën a gën a bàyyeeg suñu lépp. di ko gën a bàyyeeg suñu lépp. moom mi nga xam ne soxla wu noo am dara tey ak ëllëg lu dul moom. moom nga xam ne soxla wu noo am dara tey ak ëllëg lu dul moom. di sant sëriñ Basiru nag moom lii ci pàggu teefam la. di sant sëriñ Basiru it lii ci pàggu teefam la. di sant Serigne Moustapha di sant Serigne Moustapha it. lii ci yitteem la. lii ci yitteem la. Ah, kon nag alhamdulilah ñu ngi sant bu baax a baax. kon nag alhamdulilah ñu ngi sant bu baax a baax. di nag euh, ñëpp. di sant ñëpp. ndax euh, li yéene taalibe yëpp la. ndax li yéene taalibe yëpp la. noog ñoom ñoo ko bokk. ñoom ñoo ko bokk. te euh, njabootu Sëriñ Tuubaa ñi ñii tudd Sëriñ Tuubaa jiitu ca. te njabootu Sëriñ Tuubaa gi ñuy tudd di tudd Sëriñ Tuubaa jiitu ca. Ah, ndaw li ci teew mooy sëriñ Abdou Samad mi ngi nii te teewal fi ñëpp. kon ñoo ngi sant bu baax. kon mi ngi sant bu baax a baax. ci taxawaay bi ci taxawaay bi. taxawaay moom dafa mënta ñàkk. taxawaay moom waaye nag lu jafe la. waaye waaye alhamdulilahi rabbil alamin ku mel ne Soxna Ayda moom am na ko. li ma ko seeral fee rek. nee na moom lim ko seeral fee ci ay kàddu rek. moo di man jàpp ne dafa dafa dafa dafa dafa dëddu àdduna. sëriñ bi dafa jàpp ne moom dafa dëddu àdduna. gàddaay gàddaay. jëm ci jëm ci maam Jaara. jëm ci maam Jaara. fas yéene cee liggéeyal sëriñ bi. fas yéene cee liggéeyal sëriñ bi. te yàlla rek tax. nee na loolu la seere ci moom. loolu nag tax na mu rafet njort ci moom. nag tax na moom sëriñ bi mu rafet njortu ci moom. rafet njort yi diggam ak boromam. rafet njort yi ci diggam ak boromam moom soxna Ayda niana, rek nek ndax suñu borom neena fang ko jort rek fofu lay nek kon nak ginaaw rafet nañ jort ci mom kon nak day ñaan doli ci rek lim bëggoon ñepp fasal ko ko ñu ñaanal ko yërmane yalla ak serigne touba mom xamna ne nako waye nak mu gëna doli rek non non rek la demee الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين li tax mu jaral ñu. nee na li dëggu ci moom. dañoo xam ne li mu dëggu ci moom la. kon alhamdulilah. kon alamin. suñ borom def na sëriñ loolu tax moo tax fu fu fu la jooju mu am. loolu moo tax fu la jooju mu am. Eh, eh, maanaam fu la ji na am. loolu moo tax fu la ji nu am. ba jox ko cër bii ñu ko jox. Eh, sëñ bi nu fulaal rek. sëriñ Touba moo ñu fulaal rek. moom rek moo ñu ñor. moom rek lañ fas yéene nekk. ci moom rek lañ fas yéene nekk. tey ak ëllëg. li mu ko gën a dëgërale mooy Serigne Bassirou da doon waxtaan. li mu ko gën a dëgërale mooy Serigne Bassirou da doon waxtaan ak moom. ba mu sori lool. ba mu sori lool. ba yàgg mu ne ah waaye sëriñ bi moom am na ful la foo ko toll mu toll la fa waaw. loolu tax moo tax Aida toll fii mu fii mu toll loolu rek tax. nee na soxna Aida fii mu nu sëriñ bi rek tax mu toll ni fi sëñ beenu fa toll. kon nag kon nag ndokk bi nga xam ne sëriñ bi foo ko toll mu toll la fa nee na sëriñ Basiru moo ko wax ci làmmiñam kon nañ sant yàlla baax. jug rek te gën a jug rek gën a jëm ci sëriñ bi rek gën a yittewoo yàlla yittewoo sëriñ bi moom moo yittewoo yàlla te yittewoo yàlla nag dara wecciwu ko kon nag ndokk bi nga xam ne moo nu booleeg sëriñ bi te sëriñ bi fi ñu ko gisee ba fi ñu ko noppee gis fi ñu ko gisee ba fi ñu ko noppee gis ci boromam rek la nekk boolewu ko woon ak dara kon nag alhamdulilah rabbil alamin yombul sax. nee na yombul sax. jéem a góorgóorlu rek jéem a gën a waaye ñuy jéem a góorgóorlu jéem a jëme suñu bopp ci sëriñ bi. di ko gën a jox suñu bopp. di ko gën a jox suñu bopp. di di gën a nekk ci li li mu bëgg mu nekk. di gën a nekk ci liñ bëgg sëriñ bi nekk ci. li li li sëñ bi bëgg mu li sëñ bi sëñ bi bëgg ñu nekk ñu ci jéema solo suñu borom mu ko wax man amila saalix fali nafsihi mm-hmm. wa man azafa alayha su may laa rabbika turjaun lu waaye def mm-hmm. lu baax sa bopp mm-hmm. lii wane na ko lii firnde na ko ndax nee naa la ko dem ba xalifa général des mourides di seede ci yow ay kàddu yu rafet jëf rek am solo waaye jigéen yàgg naa am cër ci lislaam jigéen yàgg naa am cër ci mag ñi ndax nee naa la bu ñu xoolee suñu yaay Xadija xool suñu yaay Aïcha xool suñu maam soxna Jaara Buso kon soxna Aida Ndiaye bu defee lii mhm. gàcca ngaalaama mhm. dañ koy ñaana suñu borom yokk ay leeram mhm. daan ñuy tas ci barkeem fi nga tolloon ci liggéey dafa am solo nañ fi wéyandi tuuti waaw loolu lu am solo la moom laa lay wax rek man ne la liggéey moom dafa gën lu ne ndax lu bari looy réussir tey wala foo xam ne ñu ngi la fa doon séentu te demuloo fa liggéey mënal sa bopp ak ku wërsëgam nekk ci sa loxo moo koy waral. waaw mhm. ah, tey ñàkk liggéey nee naa li mu indi ci ay catastrophe bari na. dafa bari ah, mhm. bari na. Mhm. kon moom bu ko yàlla xiiree muy liggéey jëloon alalam di ci def. ba tey mu am ñu mu àndal di boole seeni alal ak alalam di ci dolli di def. kon liggéey nekk lu am solo kon jigéen ñi. muy jikóor ak ku mun waye jigen dañu toll ci jamono bo xamne ne du n'importe quel liguey liguey liguey bi nga xamne mo lew uh-huh. liguey bi nga xamne bu ëllëgé kenn du la nak kenn ku ci nekk di nga laloo sa ndey jor uh-huh. dinañ la laaj dinañ la laaj ba laaj la loo foogul woon ne dinañ la ko laaj waaw mm-hmm. kon nag moom yàlla mm-hmm. dimbali na ko góor mm-hmm. góorgóorlu na liggéey am teraangaam di def ci sëñ bi na xam na sëñ bi moom comme ni ko ñëpp di waxee rek lu lu banaan la waaye dafa dafa dafa dafa dafa dafa nekk lu lu am solo sëñ Mountakha wax na ko léegi ne sëriñ bi ko am fulla la ci boppam ko am fulla la ci boppam noonu la lay téye mbaa dum diw la rek noo ci eh, sóoboo rek nga ciy kon dafa am sax moo tax sànq wax naa la ko ci suñu début waxtaan ma ne la pas-pas ci la nit ñi rawante tey ñu bari bëgg nañ sëñ Touba uh-huh. mais am na ñoo xam ne peut-être xëy na li la jaral jaralu leen uh-huh. wala li ma jaral jaralu leen uh-huh. donc euh, pas-pas noonu mais moom dafa ñëwoon ne moom man sama dund euh, ci fii ma toll am na ku nekk ci ligne bi nañ ko jël continuer waxtaan wi salaamaaleykum salaamaaleykum euh, mbokk moom mu rëcc na waaye ba tey mën ngeen a ànd ak ñun ci 88 628 08 18 88 628 08 18 Mhm. ngeen ànd ak ñun ci waxtaan bi mu am solo leen euh, soxna si bu daan euh, si témoin li waxal ci lu baax réaction la soxna Aïda Ndiaye daan am mhm. ndax moom dafa bëgg waaw góor waaye ci sëñ bi mhm. ndax la ko ci jamonoom am lu mu dund ak ku ci yoon wi da la daan ak avec discrétion di la defal ñoo xam ne sax bokkuñu ci yoon bi daf leen daan demal dañ ci daan ànd mm-hmm. ci discrétion di leen jox ay teraanga di leen defal ay alalam mm-hmm. donc loolu dafa ne ndax moom boroom këram waa njenn la foofu daf fa daan def ay teraanga di mm-hmm. seeti sang yi fa nekk di leen di leen lii parce que man ku ñuy wax sëñ naar jenn moom moo tax ma miin ko waaw kon ci kilifa yi nekk njenn ci lañ bokk kon moom dafa yàgg ci yoon maanaam li mu doon def tam xëy na soxna jaara rek lañ ko xam lañ ko xamee woon ndax moo liggéey lu day noonu mhm. waaye terewul tam da daan dem ci ci ci ci sang yi mhm. ñoo xam ne dans la discrétion mhm. di leen defal teraanga di leen tarbiyu di sàkk tàllal loxoom di sàkk ñaan ci ñoom mm-hmm. ba ci njabootu nag sëñ Basiiru xëy na la ko yàlla gën a booleel mel ni ñoom sëñ Isaaxa ak mm-hmm. ñoom Bas euh, euh, Poroxaan ak mi ngi noonu ak ñoom sëñ Moussa Nawel mm-hmm. ñoo ñëpp ñu boole parce que dañ daan dem amoon na jamono joo nga xam ne euh, sëñ kii moom musaa Nawel moo nekkoon ci maamam soxna Asawaalo bu ñu daan dem di fa dem maa moom moom moo nekkoon ca barab ba fa lañ ko daan fekk Euh, ah. solo Ndeye Fatou mu mel ni waxtu wi tanku na jëm ci jeex. Mhm. sa kàddu yu mujj kàddu tàggatoo lan lay doon. waaw kàddu sant yàlla rek. Mhm. ndax nag euh, kulli nafsin saayxatil mawt mhm. waaw li am solo. mooy nga dund. ba dee kenn xamul la ci ci ci lépp. ci lu baax. te ni nga ko waxee sànq rek sëñ bi wax ko noonu sëñ bi ko am fulla la. Euh, sama kàddu yu mujj rek mooy fexe ba. góor góorlu ba roy. xëy na sax li sëñ Abdou Khadre daan wax jàmbaar amul ku ñu dimbalee am. Mhm. waaye boo góorgóorloo. Mhm. sama sëriñ ba sëñ Fallou da daan wax dégg naa bës dafa romb di dem am ku ko ku ko ku maanaam genre stock. Mhm. mu yóbbaale ko. ah mu ne ah, sëñ bi yow de bu dul woon yow dàngam mu ne ko dama laa fekk ci yoon bi. Ah, waaw waaw kon ñu gëm ne ay jullit lañu waaye ñu gëm ne ay murit lañu. te sëñ Touba li mu am. kenn du ko foye mhm. te dafa rëy mhm. kon bu ñu yàlla boole n'est pas murit kii fa mhm. dama ko gëm du ko mu neex nga nekk murit du dëgg dama koo gëm kon nag yàlla nañu nekk ci yoon bi waaye xam naa ne si euh, ayda nekk na koo xam ne ku ma manqué la waaw dama koy xalaat nag ku ma manqué la parce que on avait beaucoup de projets ba pare cofeel gi mu amoon ci man ni mu ma bëggee woon te di ma ko wax daf ma dama ko gëmoon ndax moom mosul dox daray caaxaan mhm. lépp lu mu wax dëgg la mhm. lu mu doon wax lu ëpp boog ci lu jëm ci liggéey sëñ bi rek ah, wala soxna jaara def na ko ñu teg ci bët te mu nekk lu dëggu mhm. te on demande que moo tax dañ koy ñaana yàlla dolli ko ngërëm ah, foofu mu tëdd man xam naa ne ma jege ñaale soxna jaara mi mu doon liggéeyal la li am solo mooy liggéey ba dem te sa liggéey te lii mu liggéey nii ñun buñ fi nekkatul sax ñeneen dañ koy waxtane mhm. parce que liggéey la bo xam ne dootul fay mhm. waaw diko ñaanal ñi nga xam ne bi nga xam ne jaara mo yor euh, euh, daaira bi mhm. tey ña nga poroxaan fofu ndax dafa amone sax projet amone na terrain fofu projet commencé fu won tabax boulangerie ba ne boulangerie bi yeggé Chine lay dem day faatu ñoy and dem jëndi euh, matériel bi def boulangerie ba nga xamé ne poroxaan yépp bu magal jotatee ñetti fannu poroxaan kenn du fi jënd mbur waaw ah, projet baa nga fa yaakaar naa ne am nañu yaakaar ne doomam yi xëy na dinañ ah, ci jàpp ñu yekkale ko mhm. waaw loolu am na solo kon di mhm. ñaanal maam jaara mi nga xam ne ak ñoom Soda saar ñi nga mhm. xam ne ñoom ah, ñi nga xam ne ñoo yor ñoom Ndey Mbaw ñoom Ndey Sàll ñi nga xam ne ñoo yor daayira bi ah ñu continuer yàlla dooleel leen yéene bu ayda amoon rek ñu am lu ko ëpp Mm-hmm. nañu nekkee ci waañ ba continuer ko waaye tamit ni nga xamee ne mooy àddiya yi nga xam ne moom lañ daan laaj mm-hmm. di ko indi ci daara ji ba tey yàlla may ñu ñu gën ko gën ko gën ko firndeel mm-hmm. waaye daal ay da xam naa ne jàmbaar la lion la exemple la boo xamee ne daal xam naa ne ah duñ ko gaawate merci beaucoup ah, soxna Ndeye Fatou ko yàlla yërëm merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax yow kàddu yi am na solo Euh, ku la xool ak ni ngay waxtaaneek émission bi xam ne dangaa dëgër rek mais soxna Aida manqué na la waaye ñu ngi lay ñaanal suñu borom dénk la xolu muñ di ñaanal soxna Aida suñu borom xaare ko aljana yi gën a kawe ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mbokk yi nga xamante ne yéen ngi ñu doon bàyyee xel ci Touba TV maa ngi leen di ziar di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm ak tawféex munaas maa ngi lay béggee bu baax a baax foofee ci Kër Massar maa ngi lay kontaan di ñaanal jàmm ak tawféex euh, soxna Ndeye Mbène xam naa ne ci kanam tuuti Eh, damay bayyi sohna ndey Fatou dem rek man mom maa ngi ànd ak yeen tay inshallah bu nexe yalla ba ba ba ba ci guddigi rek ci plateau spécial sohna jaara jaajeufal ñepp dig dajje ci kanam tout inshallah jere ngeen jeufati aduna manugo kawlintu wal jinno o fen malakin manugo